wala ngeen sàkkal yàlla dafa indiwaat ñeneen ba ilaa yow mi asuun day am ñuy nekk ci jamono di woote woote yàlla bi incha allah donc problème bi mooy bu kenn jëlee li ñuy wax ak xol wala di mer ñun wallahi les yi jubluwuñ ci kenn mu mer lépp lu luñ fi musa wax loo xamante ne merloo na doomu aadama ñu ngi koy tuub di ko jéggalu lu ñu bëggal suñu bopp muy texe àdduna ak àllaaxira loolu la ñu bëggal suñu mbokk sénégalais yépp parce que àdduna dafa yàggul àdduna du kër yàlla daf ñu bind pour ñu jaamu ko wa maa xalaqtul jinna wal insa illaa yaxbudun yàlla mu ne binduma leen lu dul ngir ngeen jaamu ma kese donc loolu mooy la chose la plus primordiale lu ñu am fii nii ci kaw suuf fii ci àddina moo tax jaamu yàlla suñu diinee dañ ko war a jël ñu fonk ko ñu téye ko ak suñuy fukki loxo juróom kott suñu diine mooy ko matt ko ba mu dëgër këcc mu jaral ñu lu ne gënal ñu lu ne Cheikh Yunus gënalu ko mu toog fii ñu koy saaga saaga ay waajuram donc gënalu ko mais dafa war a leeral dëggu yàlla ji obligation la ci moom li nga xam akas akas néew ci diine da ko war a leeral surtout boo nekkee ci réew mu mel ni réewu Sénégal nga xamante ne ñi taxaw pour di réeral nit ñi ñoo ëpp foofu ñu taxaw pour di gindi nit ñi. kenn xamul ñaata kuréel moo nekk Sénégal ku nekk di xëcc di jëme ci sa maam te ñoom ñëpp seeni maam yàlla yoo niw ci kenn ñoom ñëpp seeni maam du ñu dugg bàmmeel ba yàlla laaj ñu leen. ñett mbir yi ñu lay laaj ci sa biir bàmmeel benn maam bokk ci Hatta say propre wajur sax kenn du la ko laaj sa bir bammel kan lañ lay lacc muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon yow primordial la ci yow c'est obligatoire nga xam jëm joju c'est obligatoire nga xam kan moy sa borom c'est obligatoire nga xam téré yalla bi ñun tay ji ni réer gi ñu réer Sénégal lan moñ ko yóbbee lu sori alxuraan ak sunna alxuraan ci lu ñub nek boko sori rek da ngay sànku abadan daiman ku sori alxuraan da ngay sànku motax Sénégal xolal xolal Sénégal une jeunesse pervertie jeunesse boo xamante ne wallahi lësi dañoo sànq jeunesse boo xamante ne lu ñu maîtriser ci stade yi ci woykat bi maîtriser wuñ ko ci yonent bi yàlla yónni si ñoom demal Sénégal benn xale bu ndaw mu romb la nga ne ko na la wax benn xadis ci xadisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xamu ko mais woyu Sidi Diop ak fecc bu bees bi ban na Njaay génne xale bi maîtriser na ko parce que dafay toog ak ay waajuram muy dégg ñooñu tam di woyantu day toog ay waajuram ñooñu noonu di seetaan statut ay musique di ko ko tegal ci kër gi mu koy dégg te xale bi yàlla da koo sàkk pour mu jaamu yàlla lan moo war ci xale bi mooy mu xam diine woom mais li mu xam ci woykat yi xam ko ci fecckat yi xamu ko ci yàlla xamu ko ci yonent bi xamu ko tam ci alxuraan bi moo tax nee naa Sénégal yow mal xiyaam da ngeen gis ay nit yoo xamante ne dañuy jàpp ni seen loxo waajur ànd ak ñoom jëm safara parce que yow yàlla bu la joxee doom xamoo sax responsabilité bi ci nekk ñu ngi jur rek di teg di jur rek di teg te jéemuñu yar njaboot njaboot gi dañoo sànku Sénégal xale yi dañoo sànku comme pas parce que boo juddee tarixa yi lañ lay xamal tarixa yi ñëw garantir la ne la defal lu la neex sàccal fenal bokkaaleel bi daawal defal lu la neex pour lan parce que ba su yowmal xiyaam am na koo xamante ne dafay ñëw plaider la sa diggante ak sa borom naka la xel mu sell waree nangu loolu chacun est responsable de ses actes amul góor amul jigéen kon nañu gën gëstuwaat suñu diine ñu dem jàngi ñu gën a xam suñu diine xam naka la ñuy jaamoo yàlla ñu jaamu yàlla ci nim ko bëggee royee ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te xam ne àdduna yàggul dañuy dee léegi-léegi jóge fi yëpp ci ay nettali kese lay mujj te ñu moytu sëriñ si ñoom ñëpp amul kenn nag ñoom ñëpp laa wax ñoom ñëpp dañoo taxaw di wooteel iblis pour jëme ñu safara ku waay topp ku dul yonent bi di torox àdduna ak àllaaxira wallaahi atiu llah wa loolu la yàlla waxul benn yoon nañ topp benn sëriñ kon luy waajib ci ñun mooy ñu topp muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom la yàlla ni moom la ñu war a topp moom la ñu war a roy moom la ñu war a xool ci lépp nu muy doxee nu muy solee nu muy waxee nu mu daan jaamoo yàlla yonent bi modèle la ci ñun c'est le modèle parfait le modèle par excellence soo déggee ñu naan sunna sunna lan la sunna mode de vie la comportement la boo xamante ne yonent bi daf koo yoroon ñun loolu war a copier ci moom moom la war a royee yonant bi ba mu jeex takk jaamoo ko yàlla parce que jaamu yàlla boobu moom la yàlla di valider bépp jaamu yàlla boo indil yàlla bu dul ne da nga koo royee ci muhammad sallallahu alayhi wa sallam yàlla du ko jël da koy rejeter kon bu ñu sàggan ci suñu diine bu ñu sàggan ci suñu diinee nañu xoolaat bu baax a baax a baax ci kan la ñuy jëlee suñu diine nañu xoolaat bu baax a baax kan la ñuy jox suñu nopp yi di ko déglu muy wax ci diine parce que mën nga déglu koo xamante ne nii dafa mel ni maaxa di jàngul mu wax njuumte boo xamante ne njuumte boobu noonu tey ji mën na laa sànq ci sa diine te non warta demee noonu doomu aadama bi sa cër yëpp danga cee war a jaamu yàlla xataa sa nopp yi danga cee war a déglu lu neex yàlla waroo toog di déglu benn sang ñaay wala benn n'importe quel sëriñ boo xamante ne nii jàngul dafa mel ni man nga di ko déglu mu lay ci sa diine di la sànq bu Cheikh Yunus ñëwee na la déedéet du kii lañu war a topp lii la alxuraan wax lii la sunna wax nga ne noo Cheikh Yunus dafa bañ suñu sëriñ ñun bañ seen sëriñ yi ñu benn intérêt bañ sëriñ amaluñu benn intérêt bañ nañ ko fii duñ fi toog di xas sëriñ duñ fi toog di saaga sëriñ duñ fi toog di dugg ci vie privée sëriñ parce que intéressé wuñu lu ñu intéressé mooy li sëriñ bi wax mu wuuteeg waxu yonente bi sallallahu alayhi wa sallam lu ñu intéressé mooy li sëriñ bi bind mu wuuteeg alxuraanu yàlla bi loolu moo ñu intéressé loolu la ñuy toog dajji ko te loolu muy taw muy naaj ngeen ñuy door duñu ray duñu saaga duñu diri duñu yóbbu police duñu porter plainte duñu diaboliser lu ci mënti am pare nañ pour engager loolu bi isnillah ba keroog yàlla di dekkil jaam yi ma bàyyi ñenn ñi jël kàddu incha allah. aywa naam barakallahu fiik <coughs> soxna maa xam yàlla na ci leeral bi. Ah, cheikh bi fi nga da ngay tourner sa lampe bi quoi parce que sa lampe bi dafa day jël code bi Cheikh Baylo ngi lay ziar alaykum dara ziar wa alaykum assalam wa rahmatullah ah xaw bari bari quoi mais ma len deug inshallah khayakum allah sank amna ko wax ni borom monsieur bu dang bi ngeen ni ngeen ni laay bal. borom musóor bu dang bi fenkat boobu de incha leer ay mbiram tey. <coughs> aywa cheikh bi sa sa lii bi dafa pose ñu ànd déglu <laughs> sang njaay mi nga xam ne si ni tey moom moom fenn rek la mën te nee na ne moom dafay dafay dafay wax ne oustaz alfa di jël ay wax yu ñaaw di ko teg ci oustaz Alpha ndax lan parce que dañ koy laaj ay dalil ci wax yu muy wax ci mbir yi nga xam ne si ni tey moom lay ñëw di wax te amu ci benn preuve yàlla ak njërulu am bu baax di leen ziare. maa ngi am jàmm bu baax. yéen daal li ngeen nekk nekk leen ci kenn mënu li ñu nekk kenn mënuñu cee xoqatal ba ba tax ñu bàyyi li ñu nekkoon wala li ñu gëm. yaa ngi dégg man fan yi yëpp ni ay ni dañ may woon ni si TikTok ba lañ jëlee sama numéro di ma menacé naan ma nan ngay tuddee maam Dia di nekk Ibaadu man leen fan la ko yàlla bind. yaa ngi dégg man leen man murid laa woon mais man maa xam ne lii ma nekk mooy dëgg mooy dëgg tey te mooy njëkk te mujj. yaa ngi dégg man soo leen ma woowee menacé ma sama yoon nekku ci naan ma changé su tudd man leen maam Dia lay tudd te li ma nekk moom lay nekk yéen daal loo leen nekk. continuer leen ci noonu bu leen kenn xoqatal ban tax ngeen ragal incha allahu rabbi na moom mooy dëgg mooy njëkk te moom mooy mujj waaw continuer leen ci li ngeen nekk fan ni yëpp wax dëgg yàlla ñun ñëpp suñu xool sedd na waaw man chaque jour ñu ngi may woo ay nuuru laa ku nekk moom ngi may man leen man bàyyi leen ma li ma nekk laa nekk li ma gëm laa gëm ngeen gëm leen li ngeen gëm ngeen bàyyi ma man ma gëm li ma gëm waroo tudd maam jaara mën a leen. ko kooka du laa ko waa dafa jël sama numéro daf ma woo si euh, dafa ma woo naan ma yow nan ngay nekkee euh, maam jaara naan dangay topp ay ibaadu ma ne ko man mu ne ah ma ne ko murid laa woon papa murid mais man maa xool lu ma arrangé ma nekk foofu noonu ibaadu gi ma nekk moom moom ma moom ma ànd loolu mooy ah? dof loolu mooy loolu mooy ndofte mhm. nga ne muy xel waaw loolu la nga xam mais mais mais mais kii Zulmaat est-ce que bu ngeen ko yóbbu dalal xel eh Zulmaat il manque des casiers Zulmaat da ngay xool kanamam gi xam ne di ko war a yóbbu dalal xel Zulmaat wérul de boo xoolee de baaram boo wérul ah xoola wallahi ku sa ku xam psychologie nit ku xam psychologie nit Zulmaat dafa am problème li ñuy tudd dafa am trouble de la personnalité ku jàng li mooy psychologie de de l'être humain Zulumaat dafa am dafa am li ñuy wax de personnalité boo ko dégloo mu wax ku xam nit wallaay boo benn si kaas mu déglu ko bu ko dégloo image boo ko joxee vidéo dafa naan la waa ji wérul li may wax nag daañu ko waxaat feneen de Zulumaat wérul. waaw man de li naa ko. Ah. incha allah gisuma lu ma ciy dindi. maam jaara laa tudd gis naa ne lii moom mooy dëgg te lii mooy njëkk te moom mooy te incha allah rabbi gëm naa ko te gisuma ku ma génne incha allah yéen daal loo nekk nekk leen bu leen kenn xoqatal incha allah. barakallahu fiik su naa ngi dem de alhamdulilah. ah jërëjëf kontaan. ok. Umar Sall soxna Wally Seck maa ngi lay encouragé de wala sànq la laa man gisuma lu ma ci fan yii maam jaara yeeg maam jaara yeeg xaadi bamba yi ñooy gis na moo tax ñu jëfur <laughs> man fan yëpp nuuru laa moo topp di ma woo kooku moom même am na beneen maam jaara boo xam ne man mu amul sama numéro si laay bi la may fekk naa sama xarit nga bul xaritoog moom dof la di tontu Ismaila wax dafa dof wérul waaw day topp di ma woo sànq la coupé ma naan ko kon yow ba léegi yaa ngi ci axlu sunna ma ne ko eh, xam nga lu ma la yéega mu ne ma ne ko man bokkuma ak yow dara da nga koy porter plainte pour harcèlement bokkuma ak yow dara li may gëm mu ne ma noonu bëgguma la bi ñu tuddee la yaay yi sëñ Tuubaa ba yëpp di ma nekk nekk ci yéen li ngeen nekk ndax yéen ay yéen moom wéru bàyyi ma man li ma gëm ma gëm ko chaque jour day topp di ma woo di ma woo defee nii man ko eh bàyyi ma ma gëm li ma gëm mooy dëgg dem bi muy def laay mu dugg bind samay bind ñooñu ma saaga. lu gën sax lu gën mooy ñooñu naan tudd ma jaar changé sa tudd ma ne leen maam jaar lay tudd changé wu ko tey changé wu ko ëllëg te euh, sunna lay dund incha allah wa rabbi te gisuma lu ma koy teree mën a dund.

mais ben frère mon tax ma ma fait si affaire sunna parce que c'est vrai que je suis né dans une famille bo xamanteni ñep ay mourid lay bi ba may c'était pas facile parce que dañ ma doon ridiculiser di wax ni que dama commencé di pourquoi nga hmm. nekk xale amagoo sa vingt ans ngay muudu di def ay affaire pourquoi hmm. ni pourquoi na c'était pas facile j'étais élève hmm. ma doon jangi sama waa classe aussi pareil yow nga wara sol yu nga wara sol xam nga nga nek fi na da ngay muru j'avais débuté ci ci deux voiles bu noir ak bu blanc duma ko mësa faté c'était à cause d'un frère ko xamanteni moma doon inciter ci lu bari nan ma ko jigen dafa wara muru jigéen dafa war a sol lu yiw depuis 2019 ba tey maa ngi si di si gëstu aussi lu bëri ku ma gis nga xamante ni que dangay ngay suivre même yoon que man damay rapproché wu si yow pour que ma gën a xam lu bëri même si fi ma dëkk c'est pas facile si man parce que ñi ma war ñëpp ay tarixa la ñu gëm donc su may wax sax duñ ma déglu mais n'empêche su ma leen déggee ñu wax yenn wax yi dama leen wax ni que li ngeen wax ni que du noonu lu ma si mën dama ko si def mais genre dañ naa ma yow nga topp rek respecté woo kenn te dangay topp ñi nga xam dañuy saaga suñu sëriñ ñi affaire yooyu xale bu ndaw nga bëgg a tardeel sa mm-hmm. bopp affaire yooyu noonu man leen waa d'accord bu fekkee ni que yéen loolu gis man garaawul man li ma gëm gëm naa ko ba pare kenn mënu ma si jëlee bu ñuy wax ay màggali ay affaire yooyu noonu man je reste moi duma dem fenn xam nga maa ngi jàpp maa ngi julli gëw ma benn sëriñ genre li ma war boog maa ngi koy def même si yombul parce que dañ lay wax genre dañ lay inciter à ce que nga def loo xamante ni comme si korité bi on a dañoo teel dañoo waxoon dañoo si vendredi bi mais dañoo ne carrément parce que sëriñ bu mañ bi wax na que gisul weer ñun dañuy wooraat samedi donc j'étais obligée à ce que ma bañ a woor mais aussi ja du ma lekk aussi duma lek korité hmm. tawma donc damay xaar ñeneen parce que fi ma nekk la plupart est dominé par les tarixa muy sama côté papa muy sama côté yaay yow wara nga way lek ko quoi wa lekk ma juste dama doon naan rek dama doon naan ak waa moy lo mais wara naa quand même sama xol da ngay làqatu dem ci benn ips mu ñëw rek boo amee salaire mu jeex fi mu toll nii del yem ci ndox mi rek ak miskit bu baax a baax a baax boo amee salaire mu jeex waaw wax dëgg yàlla mais nag c'est pas facile nag de de suivre la sunna du prophète c'est pas facile du tout franchement surtout en étant jeune ah yow tu n'es pas libre si benn côté parce que yow dañ laa yor déjà xam nga nga bëgg a ñëw naan la non yéen li ngeen nekk du dëgg parce que nii nii naa dañ la naan yow buñ arrêté suñu poche yow dootoo lekk tu te permets nga naan ay lii ak lii du dëgg ak lii ak lii tu donc dafay metti d'une part mais yow sa gëm-gëm gëm nga ko man li ma gëm-gëm naa ko kenn mënu ma si jëlee même si c'est à cause d'un frère ñu naa ma yow kooku da ngeen dox fii ñaar wéroo leen mais ñun man xam naa ni que man wér na te moom aussi je sais que ni wér na parce que li muy suivre mooy li dëgg même si famille wam aussi ay yaayam man mi sama yaa parfois danaa ma yow dangaa feebar di ma si wax ay wax yoo xam man sama boobu du ma neex mais damay xam ni que man li ma nekk moom mooy dëgg parce que yoonu yàlla yombul boo gisee lu yomb rek par exemple dangay xam ni lii dafa war a metti quoi jaamu yàlla mais pas que ñoom niñ koy jaaralee ci sëriñ yi xam nga. di dem di takk ay téere man damay toog fii sama yaay daf may yëkkati di ma jox ay ay sangaay affaire yoo ma ne ko ah man de garaaw bàyyi rek may julli su ma jullee peut être yàlla dina def lu gën mu ne ma man dootuma defati sama dara si yow comme yow chaque fois su ma demee wutali la doo ñëw doo sangu ma ne ko ah man moom mère bàyyi rek yaa ma gën a xam foofu laa koy bàyyi ba affaire yi yàqu wallahi azim du ma du ma takk téere loolu yëpp gëmuma ci dara dara dara dara dañ may wax ni que yow li lay jàpp doo ko xam soo feebaree da ngay dee man lee waa d'accord dafa fekk ni que sama jour dee dafa jot mais li may gëm moom man gëm naa ko à chaque fois nag je suis vos live damay nekk di di partage ay vidéo mais même même si duñ ma déglu mais lu ma gis loo xamante ne nii mën na leen a teg man si yoon bi ma nekk dama leen dama leen koy yónnee aussi li yonent bi jàngale ma donte nag jàngaluñ ma arxulaan lu bëri mais li ma koy maa koy jàngal sama bopp parce que jàng naa français maa ngi koy jàngal sama bopp maa ngi gëstu aussi si lépp di jéem a améliorer wu si sama solin si sama lépp pour gën a parfaire sama sama bopp si lu jëm si yàlla ak yonent bi. yàlla la yàlla yàlla la yàlla jàppale del del suivre live rek dégg del suivre live bi et yi ah mbokk yi nekk ci club house bi jox leen ko lien bi di participer eh, ci ci jàng ci jàng bi quoi. waaw bu duggee bu duggee club house moom boo duggee club house ni ma lay dénk. voilà plateforme dénk waaw boo demee club house boo fa demee moom façon jàng boo bëgg danga ko fekk. dénk. soo ko soo ko defee moom incha allah. di la moytandiku loo ngay jàng alxuraan sa bopp alxuraan kenn du ko jàng sax lañ la koy jàngal. Ah, ñu fiy jàngee boo boolee yooyu yëpp. Sénégal moom dañoo nekk dëkk boo xam ne dëkk boo xamante ne bi nii boo julliwul amoo problème waaye waaw Sénégal dañoo nekk dëkk boo xam ne boo julliwul amoo problème waaye problème boo toppee sunna rek ñu bàyyi la moom dafa loo neex moom da ngay nekk libre waaye boo toppee na rek nga am problème ak say parents. am Yalla Yalla sàmm la soxna Fatima. incha allah dinaa si góorgóorlu bu baax merci beaucoup je tenais à participer parce que ça me tenait à cœur à ce que ma wax li nek sama xol et que ñi nga xamante ne bokk bëgg-bëgg ñu dégg ma aussi merci beaucoup. barakallahu fiik jazakallahu khairan gars yi dama leen di seedal